depuis bi ñu décidé bi gouvernement bi décidé xalé yi dellu ci école yi le 25 juin ñu ci lañ japp né lépp lu ñu daj ci coono bi moyens ñu mobiliser ak énergie yi ñu déployer yépp coow li coow li mooy ñu egg ba ci xale yi jàng ba ci examen yi examen yi demee niñ ko bëggee ba génn résultat yi ci jàmm donc ñun ci bis boobal ci 25 juin lañ tàmbali sànni suñu bët ci bisu tey bii rax ci dolli ñu jógee ci loolu ñëw. am na ñaari fan ma daje woon ak IEF yi ñi nga xam ñoo nekk ci yenn zone yi waxtaan ak ñoom pour ñu wax ma fan lañ toll ci préparatif yi wax ma un peu affaire Covid bi nga xam ne dafa am nga xam ne moom moo xaw a moom moo ñëw di gan goo xam ne nii du gan guñ doon xaar mais gan la ko xam ne mën naa yàq xew yi mm. boole ñuy def tamit examen ci biir taw bi ma dajale leen ñu ne leen wax leen man nan ngeen toogee ñoom ñëpp ñu xamal ma ne vraiment ñoom ñett ñëpp que nopi nañu pour mën a def examen yi ci jàmm dajale vraiment jumtukaay yi war yépp pour que xale yi mën a ñëw nekk ci sécurité ba pare même bu da naree taw sax jël nañ ay devant pour que bu naree taw ñu seet nu ñu délocaliser yenn centre yi donc bu ñu waxtaanee loolu ba pare tey ñu egsi ci bés bi ma def benn tournée ànd ak sama staff yenn inspecteurs yi ak waa examen et concours dem ci yenn centre yi ci ñetti IEF yëpp boo léeg fi aussi jël ay seen équipe inspecteurs yi yóbbu leen ci yenn école yi pour ñu dem ci centre yëpp ñoom xool wax ma ma boole lañ ma wax lañ ma bind ak li ma gis gis ni ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax et que examen yi mi ngi dem ci jàmm. kandidaa euh, yi tolloon nañ ci fukk duni ak juróom ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn euh, jigéen ñoo xaw ëpp tuuti ndax ñoom dem nañu ba toll ci juróom-ñetti junni ñoom ñëpp ñu ngi leen tasaare ci lu mat centres. mais boo xoolee ab absent sax téeméer boo jël am na ci juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar à peu près ñoo xam ne teew nañ donc am na ci téeméer boo jël ñett ñoo xam ne teewuñu te loolu li ko waral mooy même bi ñu delloo ci classe yi am na ci élèves yoo xam ne nii ñëwuñu parce que dañoo am ay feebar yoo xam ne nii bu leen Covid bi laalee day gën a garaaw ci ñoom ba tax ñu toog ñu dolli ci aussi yenn daal libre yu bari aussi dañoo ñëwul mais ñun jëloon nañ matukaay yëpp. biñu ñu gisee ne examen bi huit heures la war a tàmbalee alors que élèves bi delloo école neuf heures lañu daan dem ñu def ay communiqué IEF IA partout pour wax nit ñi ne examen yi neuf heures lay commencé ñu def ko un peu mode journée continue mu war a jeex boori treize heures pour que xale yi bu ñu ndekkee seen kër ba suur bu ñu ñëwee duñ soxla di génn di wutal lu nekk loolu parce que heure bi añ di jot. Mhm. dina fekk euh, examen yi jeex. Mhm. donc vraiment fi ñu toll nii daal ñu ngi sant yàlla fii ci biir académie de risque. mën naa wax daal lépp mi ngi dox ci jàmm et que incha allah suñu borom mën nañu sutural ba lépp jeexe noonu ci jàmm BFM ak baccalauréat am na luñ ci jot a mos parce que baccalauréat bi jàll nañ épreuve anticipée philo te biñ koy def dañoo jël matukaay yépp pour tester un peu li ñu teg noonu xool ba xam buñ demee ba ca examen ba nu muy demee ñu gis ne bu amoon ay rëq-rëq yu sew sawaan aussi dañ nañ ko saafara boo jëlee CFE bi nga xam ni ngi koy def ak euh, BFM bi ci école yi yéen dañoo organiser lu ñuy wax ay examen blanc pour tàggat xale yi te examen blanc yooyu nga xam ne dañ koy def mu mel ne dañuy def examen dëgg-dëgg bi may nañu ñu xool ne par exemple boo xoolee yenn centre yi nga xam ne am na ci ay classe yu seen ak yooyu ñu ne fii bu ko ñoo jël di ko fi defee def dajale xale yi pendant ay une dizaine de jours ñu délocaliser loolu test yi ñu def ñu moo ñu ko permettre donc non seulement ñu ngi dund CFEE bi ci condition yu baax ndax préparation bi ñu defoon mais aussi ñu ngi njort ne. bu BFM bi ñëwee ak baccalauréat bi incha allah yàlla mën nañu sutural ba mu demee nii mu demee ndax lenn lu ci ne man ak samay IEF dañoo dajaloo jàppante ànd ko gouverneur euh, collectivité locale yeeg ak commandement territorial bi ñu waajal ko waajin boo xam ne nii daal vraiment dem nañ ba natt matukaay yi ñu jëloon ba gis ne incha allah buñ ca yeggee lépp mën naa yem.